Ramadan Mubarak sistis Ramadan Mubarak sistis Ramadan Mubarak kër gi force ñëppay woor koñ bi ñëppay woor kàcce bi tamit ñëppay woor amul waxal midi waxal kat bi da ngay woor waxal kat bi dafay woor ku fi wóorul ba tàkk ko jàpp la Ramadan Mubarak sis Ramadan Mubarak sis Ramadan Mubarak sis comme ni ma la ko waxee woon sànq jëm ci téléphone bi nga instant ci xew laay jëm te fu ma jëm dama fa bëri noonu jànk te sama papa sa bëggul sax may utiliser ay prix yooyu wala ay fan yooyu soo ma ko mënul aba sax mais luwee ma ko sa jàpp ci rek su ko si yaa si mën a jàppee instant yi ay jànk ah, xam nga ay affaire location cheveux iPhone yooyu dama ko arrêté waaye nag euh, mënuma la ko àlle dama la koy luwe dégg nga loolu amul benn problème mën naa jox ma ko rek mais ñaar ma koy <laughs> ko waajil mais dafa bëri daa dëkk daa métti bee bëriwul i bëri na wàññi rek ñoo far def ko douze mille rek douze mille jàpp ci nag dafa jàpp ci nag mën nañu ñoo far un seconde. ah 12000 dafa ndaw. jàpp ci rek 12000 daal laa am daal instant dëgg neex yàlla. waaw oh, baax na tànk yow doom ndey nga bàyyi ma defal la ko 12000 rek. Hmm. xaaral ma gis nga maa la koy jox nga dafa liis macha allah. am iPhone baa ngi nii sept plus laay la jox nag. tojul deful dara. boo indiwaat na nga góore rek def ko comme ni ma la defee nii. non amul man yow xamante nañu baax na sa xol seen. surtout man daal damay bañ daal wax. mais t'inquiète pas xoolal man maa lay transférer xaalis bi incha allah. ok na baax na ok merci waay. keneen ku fi togal fi Ramadan. moom tey moom balaa ma xaw moom dinaa ci am photo yu baax yu bëri sax ci réew bi ma lii rek maa ngi nii def sañse def bëri ah ëpp iPhone 7 laa yore 7 7 moom laa laal nii samay noonu génn leen bokk te jëlal lii yow. wuy sama eh mer noppi eh noppi laa la jëlal. ay gën a am kaw justement soxlee nekk ci mbedd bi di seen mel yaa moom nit eh eh ah, eh laa dama kaa luwee yëfu eh, jaamul la eh, soo yuuxu dama lay rey wax la waaw dégg nga li ma la merde waaw ay eh, waay waay waay ah dama kaa awa def essay nii Ramadan Mubarak sis sis lan la lan la dangay jooy ma joxoon iPhone bi yëpp la ñu yóbbu. foofa toj nag xanaa sañoo wax loolu nag sa wax bi rëpp rëpp rii ma naa ne yow mii boo demee bàyyi naa àbbu sa ba nga naa ma ay ab aal ma ma sax la laa la war a wax. takkoo ay waay bu loo dafa ñëw fii amul lu mu waxul ma ne ko man dootuma a dootuma luwee ci sëba mu ñëw fii nii naan naa ko luwee sëba léegi ma luwee ko sëba mu ñëw fii dama làkk ay daal daal kii <coughs> eh, ma laal la dégg nga <coughs> Mental mental Thank you. Oh.